gu kooru jàmm te koor moom dafa am solo ah, mooy eh, yàlla moo koy fayal boppam te bis koor te tamit mu nekk bis boo xam ne nii eh, dañuy dañ koy feetu dañuy baalante àq di jàppalante daal ñaan rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne addu'a silaahul mu'min ñaan mooy eh, gànnaayu ab jullit kon ñu ñaan rek te yàlla saxal fi jàmm te yaakaar naa Sénégal jàmm rek fi sax incha allah. waa déwénati mais quand même euh, c'est important parce que li taxoon ngeen koy def rek pour nit ñi xam li xew vraiment maa ngi leen ciy gërëm leen sant. leen baalu ak yéen tamit.